fekkee sama doom yi suñu gerte la ñu añ reer bi poisson la ñu def ñu ngi xiif boo xam ne lu ñu def man xaaral ma obligé dem foofu nan laa demee foofu man ak moom ñu seet mu jël kii lu mu tudd vingt mille jox ma bu ma joxee ma kii ma jaaraale marché foofu ñun lu doy la soxna si di dund xamul woon ne benn yoon jàppante gorom moo ko nar a yóbbu si xat yu méttee métti mbir mi si baaraam bu méttee la tàmbalee waaye si am jagato la mujjee. bu ñu jotee mu dóor bu ma dóoree ma fayu parce que la première moo nekk dóor bi deuxième fois tamit ñu xuloo mu ñu xuloo mu dóoraat ma dóor bi dafa métti man tamit bu ma jógee si dóor bi rek daf maa dóor ba ma daanu man tamit ma jóg rek jël benn xeer jël xeer bi dóor ko si ba mu nàcc léegi ba mu nàcc mu ne man ngay génne ter bu soobee yàlla dootoo ko defati boo boo gisee sax fu ñuy dóoree nit da ngay dox bu mën a jàppee dootoo dóoraat nit mu wax man ni ma ne waa bu dee yàlla nga xawaat fer ñaari fan rek mu voyagé bu mu voyagé rek ma am loxo loxo bu métti parce que restaurant laa doon liggéey benn jour maay togg rek nga ne lu ma mat comme meneen taan rek affaire bi jàpp sama yaram bi yëpp ma ne eh sama yaram bi dee daa ma woo sama pat man ni sama yaram bi tey eh, dafa dee am na lu ma mat sama loxo tey sama loxo bi day metti ma ne ah, ma mu ne kon wàcceel demal kër ga may man ma ñibbi si kër ga ba ma ñibbi si affaire bi metti si enneg si ma ne eh sama patron est-ce que tey man mënu ma xëy parce que sama loxo bi day metti balaa seen kër sama loxo bi néewi ko gis sama ndox néew yi mel ni noonu laa demee hôpital ñu ne loxo bi kañ la ma ne bii de démb la ñu ne déedéet boo dee ngaa topp kër gi loxo ma ne démb la ñu bindal ma ay ordonnance defal ma naan garab da ngay yaakaar loolu moo koy yof loxo bi di néewi rek di néewi di néewi rek di néewi noonu ma jóge foofu dem hôpital régional ci lañ ma téye foofu ma def foofu ñetti fan bu ma demee foofu ñetti fan affaire bi di mi gën a métti rek waaye sama dem na si lan xuloo bu ñu xuloo maa ne xëy na loxo bu métti rek sama mbokk yi ñëw loxo bi balaa mooy mot semaine loxo bi commencé bi xëy di di di di kii daal loxo bi kenn xamul lan la analyse amul analyse bu ma def ma def analyse façon du ne loxo bi nangul noonu nañ moom ma topp rek ma topp bu affaire bi mot weer may jaaban Portugal ak nit ñu ñuul fu ma dem ñu ne dañ laa sant koote ñu defal ma benn kii ñu ne rajo ñu ne suba lañ ko ma ñëwee ñu naan nouvelle bi neexoon de waaye il faut ñu wax na te yow yaa ngi ni yow kese yaa ñu àndal kenn na ne waa ñu ne sa loxo bi de baaraan yi ñetti baaraan yi dañ koy dab ñu ne dagg mu ne waa mu ne waa baax na waaye benn docteur moo ñu foofu mu ngi tudd ma ànd mu ne ah bu dee man maay yow sa loxo bi de balaa ñuy opéré da ngaa war a dem si nit ku ñuul yi ñu fajal la ko ba pare parce que sa loxo bi yéeme na trop trop trop man kontaan moom ma ko man ne waaw benn bool moo ngi foofu mu tëttal ma si gannaaw village mu ne demal foofu boo demee foofu bu dee porte na kooku da koy dindi xam nga sax wécc ma ne waaw loolu yëpp du ma ne la boo ma gisee man ne leen lu ma xamul ma xëy fa dem ma jël moto ma dem foofu ma demee foofu mu mu xool mu jox ma ay garab ñu sangu ay garab mu ne léegi da ngay des nu ngaa def ñetti fan ma ne waaw mën naa def ma def foofu ñaari fan lu affaire bi kii mu jël loxo bi boo gisee lu mu dindi sama loxo bi mu dindi affaire yi sama loxo ma ne gis ma lii moo nekkoon sa loxo yow mu ne jabaram bi ma toggal buy mu toggal ma buy nan naa ma naan buy bi yow dema nenowa nenow nenow nenow nenow nenow depuis cinq heures la ko dindi boo kii quatre heures du matin laa jóg ma jógee noonu mu ne des naa tuuti suba tamit dañ koy dindi si ëllëg si ma dindi ko mu ko dindi ma ne dama ne ñibbi boo demee ñibbi nga dem hôpital parce que loxo bi yàqu na foo demee hôpital bu ñu dindi baaraan après nga ñëw yëkkale say garab noonu laa ñëwee ma ne fa mu ko waa Dakar ñu ne dañuy tàgg baaraan si coono boobu laa nekk mënu maa liggéey léegi damaa nekk benn loxo mënu maa liggéey léegi balaa may am daal il faut ma foofu amal foofu du ma ko am damay am solo soxla lii yenn saa yi damay am problème dépense lii bu ma amee problème dépense il faut ma dem di sant bu ma gisante ak ñoom bu ma ko joxee ma def ko dépense ma waaye dundee dund bu métti ma ne matelas sax fu may di ak sama doom yi amuñ ko te xam nga rek mbokk léegi mooy loolu te mënu maa dem si benn mbokk ma ne dama koy jooytu damay jëkke moom naa toog ay ñaari weer ay ñetti weer ginnaaw bu ma waxee nañ nañ seq dara du ma ko nangu ma dem jox ko keneen moo ma ma jox ko moom bu ñuy seq dara sax hmm. affaire bi da ngay yàq sama xol bi ngay but ngay but billaay wala sonn xam nga fu ma koy jooyatee sama mbokk yi ñu ma li yàlla xam na ne xamuñu ma si lan laay dundee xamuñu ko parce que sama loxo bi dafay metti di waaye bàyyi ma sama bopp bu ma defee samay affaire boo am xaalis damay dem jënd sama jiw defar sama bopp. loolu moo tax dañuy yaakaar lu ne laa am fekkee lu may dund ma nag yàlla moo ko xam mat laa sax fu may tëdd aw ma ko bu dee ma doon dem si biir dëkk bi ma tas ak benn jaay gàtt daan na ba ma tasee moom kooku woo ma mu ne naa ko jox nii parce que day jaay daan lay bëri ma ne ah waaw baax na. دعنا بقوم أنا هاي رسول الله جل نسمع روبي دعنا mu ne jël sama numéro jël numéro ma ne arrêté ko bu ma defee kii nu mu tudd ti bu ma ko defee estati nga gis dana bi nga bëgg nga jël ko ma ne waa non non nga jël numéro ma ñëw kër ga rek mu moom mu ne yow de depuis ma gis la dama naa bëgg ma ne bëggoon man man dama am jëkkër man bi ma si yooyu mu ne ah mu ne ah ma ne waa mu coupé mu bàyyi ba ñaari fan tamit nga woowaat ma waxaat ma loolu eh te si màggal bi sama jëkkër yónnee woon halis. mu ne boo ñëwee fii de danaa la jox eh, cinq mille ma ne ah moom la wax ma ne waa baax na man ma nekk ma bëgg sëñ bi jëkkër yi noonu ma woo ma ne yow foo nekk foo màggale ma ne ah fii naa màggale dawuma ma ne yow ngay màggal woo ma sax mu ne waaw noonu la damaa yaakaar ma la woowee doo ñu ma ne ah pourtant boo ma woowee woon damay ñëw de ma ne man de tey damaa bëgg a ñëw foofu vingt mille mu ngi foofu mu ne waaw boo ñëwee bu ñu paree danaa la jox fii ne am waa baax loolu laa kii fii jóg fekkee sama doom yi suñu gerte la ñu añ reer bi fonce la ñu def ñu ngi xiif boo xamuñu lu ñu def man xaaral ma dem foofu noonu laa demee foofu man ak moom ñu seet mu ñu jël kii nu mu tudd vingt mille bi jox ma bu ma joxee ma kii ma jaaraale marché ndugg foofu ñun ëpp sama doom yi ñu lekk. dinaa wan ne dund boobu laa bëgg dund bi dafa metti si man te sama doom yi ma gën damay bañ. comme que maa ngi si loolu ba benn jour kenn nit bett ma si loolu si loolu laa bëgg a jóge damaa bëgg a jóge si loolu trop trop trop trop foo bi sonn naa sonn na yàlla xam na ne sonn na sonn naa trop damaa bëgg génn si loolu. dalee na jàmm si seen émission confession te dañoo ñëw pour ñu aborder dund kii di faatu faatu nag dafa nekk soxna soo xamante ne dafa doon sëy si kër famille waaye si kër googu muy sëy dafa am gorom bu mu fa doon jàppanteel ba ñoom ñaar dem nañ sa bay xeex xeex nañ di todd si ñaari yoon waaye si xeex bii mujj faatu dafa jël xeer sànni ko gorom ba gorom jële si ak gaañu gaañu. gorob gi da xamal ko tukk ko tey lay njëkk tey lay mujj ngay yëkkati sa loxo di ko jëmee si nit kàddu yooyu noonu gorom yëkkati woon loolu des ci bopp kii di faatu ñetti fan dañ si teg këram bi tukki faatu nag continuer occupation da doon liggéey moom si restaurant waaye si biir liggéey boobu noonu dafa commencé sentir métitu baaraam métitu baaraam boobu moo dem ba tere koo liggéey baaraam bi na commencé néewi néewi néewi néewi bu dem hôpital gars yi xamuñu lan la jox ko ay garab waaye mel na ni garab bi day gën a yokk mbir mi mu dem si maamani ñu ne dafa am ku ko liggéey te liggéey googu noonu nag du neex a dindi mu nekk si lool nekk si lool nekk si lool dem ba si biir loolu bëgg a yàq àddunam ndaxte Fatou dafa suspecté que ne goram da koo liggéey dem ba sax moom amatul coxeet si jëkkëram lu bëgg a dara ci moom mu dem jox ko keneen si mbedd mi moom mu ko gënal foofu mu dem seexaat ci këram moom suy wax danaan loolu dañ koo def mënu si dara te góor yooyu ñu mu koy seexal góor yi dañ koy jox xaalis xaalis googu noonu day jël amul mu jox si njabootam te faatu moom elle est consciente de ça xam na loolu noonu san yi mu ngi bëgg a yàq àddunam ba tax na dafa bëgg solution pour yéen lan moo war a mën a doon solution si mbir mi est ce que waru mën a dem confronter gorom bi si loolu jéggaru ko pour mu dindi lu mu ko def ou bien war na koo bàyyi yàlla bu concentré wu ci famille am question yooyu noonu yëpp dañuy bàyyi ngeen jox ñu seen xalaat à travers les commentaires ngeen wax ñu loo leen xalaat si mbir mi ci so ñu leen di wax beneen sur confession